observateur fësale nataalu président Macky Sall bind ca wet ga Macky la fin politique fin di tekki xiif ci français xiif politique takk ci ripp donte yëgle na ñàkk bokkam ci jongante palug njiitu réew 25 février 2024 ci yéenekaay bi ba tey di observateur ay xeltukat ci wàllu politique di ci ñëwaat nag ci intérêt bi mu am moom président Sall ci des ba tey ci arène politique bi ginnaaw palais ba palais ba nag ak fukk ñaari at yemu fa def ak réalisation yu takku rawatina ci wàllu jumtukaay waraloon sargaal gu rëy gu ko Souleymane Ndiaye ak partem S2D doon sargal ci esplanade grand théâtre foo sànni mbàtt mu takk source aané mobilisation double XL la Souleymane Ndiaye def ngir delloo njugal président Macky Sall moom sëñ Ndiaye ci yéenekaay bi di ci wax ne liggéey bu rafet ngir Sénégal ak kóllëre gu mu am moo waral lool lépp teg ca nag mu ne 2024 dina takku ba Amadou Ba falu palu ku mën doon nag ci mbër yi daa am lu ko jiitu mooy conseil constitutionnel daal dina say këyit baax na te loolee faw ak taaxirlu biig la woon délai bu mujj bi Sud Quotidien ne wuré wa dem na këng juróom-ñaari sages yi di juróom kilifa yi seq ak conseil constitutionnel ñoo ci des ci yooyu jamono agent judiciaire de l'État sërëxal moom ak càkkutéef ca cour suprême ngir gàntal dugalaatuk Ousmane Sonko ci liste wote yi tribunal grande instance bu ndakaaru sàkkoo woon ñeneen ñu seen bokk nar a taq suuf bu nu sukkandikoo ci kàdduy Mame Mbaye Niang ci la tribune mooy Karim Wade Khalifa Ababacar Sall ndax sëñ Niang dafa gis ne am na lu dialogue ba fi woon ci wàllu politique wutalul woon saafara ba fii mooy mbiri alamaan yi nu leen tegoon ñoom ñaar ci wàllu yoon wut lu ñu waxul kenn yuuxu ba ñëpp dégg leen ne ay mbër lañu ginnaaw si ñu yolleekuwaat ne mes le soleil ne ci 300 wala 200 yu tegal ci mujjantal juróom ñaar fukk ak juróom-ñeenti candidat rek ñoo daal di déposé seeni dossier segg gi nag di parrainage bi yéenekaay bi di bis bi le jour ñëwaat ci chance bi ñu nu duppee les petits am risque ñu nu duppee les grands ak it ñu ne ñi parrainage député yi sowe clôturam déposém dossier présidentiel gi nag démb ci minuit l'info ne léegi ñu ngi ci virage bu mujj bi faw ak boole du saf safa ak marwa du lu yomb moo waraloon sax ñu ne ci atum 2019 candidat yi ci mel ni El Hadji Malick Gakou Bougane Gueye Dany ak ñeneen kale woon l'info ne ci weti màggeti jinney politique yu ci mel ni nag Idrissa Seck Khalifa Sall di ñu am expérience ci terrain bi candidat yu bari yu soog a jóg ku moywul ci tefes gi la ñuy des ancien premier ministre Abdoul mbay moom ci la tribune la mu gis mooy changement di coppite ci réew mi lu nécessaire la lu war a am lu ko mooy ci gis-gisam ci musiba la nu jëm opposition bi mu ne war nañoo def seen kéem kàttan bennoo ci taxaw xeex ngiri élection yu jaar ci yoon yu leer ca nag mu ne du rek président Macky Sall nee na nañu woteel Amadou Ba rek nit ñi daañu woteel Amadou Ba coowal Ndella Madior Diouf ba tey ci yéenekaay yi ci observateur ñu jàng cab néewub liir bu ñu dugaloon ci siwo glace benn médecin SOS santé bu ñu teg loxo animateur rajo bi ñu jàppoon it moom ci kanamu enquêteurs yi nangu na ni suul na ñaari liir ca yoof am na na kenn ku mu ci lëngaloon di complice ci yooyee armeel ñu ngi koy wër ba tey libération ñëwaat ci tuuma yi enquête kat yi nag daal di nar a ngàll euh, Ndella Madior Diouf ak ñi ñu jàppandool di ak paate maanaam rey gu àndul ak tayeef ñàkk toppatoo ay gune ni mu waree dugal seeni bakkan ci xott def liggéeyu médecin ci lu teguwul ci yoon yore pouponnière bu teguwul ci yoon njaayum nit ak yeneen ak yeneen l'info ne moom dee la Madior Diouf retour de parquet la am démb kon jaaraat gi ci kanamu procureur day wéy ñeenti tuuma nag yu diis moo tegu ci ndoddam wàllu sport ay fan des ci kan bi ci Côte d'Ivoire ci stade yéenekaay Idrissa Gana Gueye mel ni ku Everton jigul wala boog dalalul xel am na fa gaañu gaañu bu faw ñu xaar ay fani fan ci kanam